alors Miss bi bi muy bokku bi nga xamanteni ni final bi deugmal na dañu signé ay contrat parce que ñun Miss yi dañu am contrat ku ci nek da ngay remplir lire ba mu doy la nga signé ci souf lepp li nga xamanteni mo nek ci contrat bi ken bindul fenn auto, contrat yang ni parce que dama indi sax les preuves à l'appui parce que dama indi sax des fois ay type de contrat ba nga xamanteni ni yeen ci bopum di ngeen ko amufi, dong lire fi auto amu fi donc ñun mësuñu di kenn auto. mosuñu lépp li nga xamante nii am na ko jour bi mu gañee jox nañ ko ko oto bi mu ngi noonu te am na sax koo xamante ni nii mën na ko gën a leeral parce que kii mooy partenaire oto di CFAO CFAO bi ñu commencé ba léegi mu ngi ñuy accompagner donc moom looloo tax ñu invité ko fii pour que mu gën a leeral wax ji wax ji leer te moom après dinañ ko jox kàddu waaw beneen question bi ci des mooy euh, affaireu xaalis xaalisu Matar Ba alors moom bi mu gañee aussitôt après Matar Ba daf ko recevoir jox ko xaalis Bintaa ngi Binta defe naa ni moom moo a maîtriser lolu sax bimu paré dem na ci Abdou Latif Coulibaly mu jox ko dem na ci xawma kan sen autorité dëkk bi mu dëkk dal Sokone dem na seeti autorité yu bari ñu jox ko xaalis mais Matar ñun en tant que comité d'organisation dañ ko bind courrier dañ ko bind courrier pour un courrier euh, d'appui ak accompagnement mu recevoir ñu keroog man ak Pape ñoo ànd ak comité bi ñu dem toog ak moom mu ne ñu euh, final bi dina délégué dina dina délégué benn euh, nu mu tuddati dina délégué parce que du fi nekk parce que dafa voyagé woon moment boobu yëkkati xaalis jox comité bi ne lii maa ko jàppale ak organisation bi mais Matar loolu ñaata la woon sax du woon 1 million. c'était c'était 1 million. te mi ngi ñuy dégg ah monsieur le ministre Matar Ba. C'est li ma wax ni je pense que <laughs> moom mi ngi koy dégg mu yëkkati ko ne ko daf ko accompagner comité d'organisation mais mais c'est tout à fait normal comme une institution mais est-ce que xam ngeen ñaata lay dépenser man par année pour organiser 200 millions kan moo ma koy jox Amina mooy jël poche am di di di frais léeg-léeg mu am ay partenaires étatiques yoo xamante ni nii dinañ def dara mais jusqu'à là <laughs> c'est normal que en tant que institution mu yëkkati def ci accompagnement am xaalis boobu noonu la demee